الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بوكي نونو لين كو muy tey jii kon ñu tàmbali ci kan mooy Serigne Touba. Serigne Bachir wax ne mooy a Cheikh Ahmad Bamba. di doomi Mamar Jaara Mamar di doomi Mamar Anta muy doomi Mam Balla ma nekkoon ngay di doomi Mamaram wàccoon Jolof te Jolof nag mooy cosaanul réewi wolof moo ko fondé ni ko boroom xam-xam bu mag di Serigne Mbacke bu sa leerale Serigne Touba mi ngi gane àdduna ci wàllu 1270 ci gàddaay gi tolloo ak 1853 ci juddug Isa alayhi salaam bàyyam bi Maamor Anta Sali nag dafa nekk boroom xam-xam di doon doon ko dégg fiq doon boroom xel moo xamante ne jullit yëpp nangu lañ ko jiital ci seen kanam boroom xam-xam it muy umaraaw yi te mooy dammel yi buuri kajoor yi bëgg buur yi bëgg ko ngir liñ seetlu ci xam-xamam bu wér aku sàmmoonteem xamit ak dëggoom ci aw làmmiñ ak euh, atem bu jub mam Mor antsel nak mi ngi yaro ci mbacke bawal mbacke bawal nak moy mbacke bawal gi nga xamne mama mam maram moko moo dekkal fi ñen ci njabotam damel bañ wax Amari ngoni moko ko dogalon nekkon damelu kajor ak Bawal mu wax ne dafa nekkon ku bëgg borom xam-xam yek ñu bax ni di leen muñal loo xam ne sax nag néew na ku ko mën a muñ mu ne daan def saabu ko boroom xam-xam bi gënee moytu gën koo bañ sax mu gën a xër ci jege ko ak dalal xelam seenum néeg ci néegi buuri kajoor néeg bu siiw la te mooy néegub géej bi mu bokk moom amari ngoone mu ni ñoom kilifteefu kajoor ñu ngi ko jël maanaam ñu ngi doon kilifay kajoor ak bawol luy toll ci diirub euh, téeméeri at ak ñan fukk yëlef nañ ko kajoor ak bawol téeméeri at ak fukk yooyu nag dina am ci diggante bi ay at yu néew yoo xamante ni dana am ñeneen ñu bokk ci néeg yi ci des ci waa nguur gi ñu leen di not yëlef waaye ñoom daal seenu seenu yëlef ñoom néegu géej boobu mu bokk daal moom yëlef nañu kajoor ak bawol lu mat téeméeri at ak fukk ñoom ñooy buur yi mujj yilif ñu mujj yilif ci néegu néegi nguur yi ci ñaari dëkk yooyu muy Kajoor ak Bawol waaye nag ñoo ci gën a yaatu ak kilifteef gën ci takku rafet politik ki jëkk ci ñoom buur yooyu mooy Lat Sukaabe ka ca mujj mooy Sàmba Lawbe Lat Sukaabe Ngoone Jeey mooy ki jëkk ci néegub géej ci ñu falu ci néegu géej bi ci boori Kajoor yi Lat Sukaabe bi Ngoone Jeey moo ci jëkk ka ca mujj mooy Sàmba bi Sàmba bi nag jarbaatu Lat Joor la tubaab yi bi ñu jëkkee yëlëf réew mi lañ ko faloon ginnaaw bi ñoo ko rey ngir juyoo ko am seen diggante ci njëlbeenug quatorzième siècle sëriñ bi wax ni lii may bind sax nag jumle yi nag bokkul sax ci li nu tax a jóg waaye li tax ma indi ko fi mooy ci kanam tuuti day am lu fi gaar loo xam ne day aju ci politique gu réew mi ci jaar-jaari Maam Mor Anta Sali mi wajur sëñ bi ngir ab àttekat la woon te àtte ak politique boobu ñu ànd ak lii ñoo ànd moo tax daanaka may tudd li ak it li war a li ma war a indi ci kanam tuuti ci leeral ci ni mu daan ni sëñ bi daan doxee ak buur yooyu di tar lool ci seen kaw safaano lool ak ni muy doxee ak jullit yi muy ak nooy te loolu mooy li yàlla mooy li mooy li war a nekk ci diggante nit yàlla yi ndax noonu la suñu borom diglee ci alxuraan ni azillatin ala al muminin aizzatin ala al kafirin te mooy dañuy nooy ci jullit yi waaye doon ñu jàgg ci kaw yéefar yi mu ni waxoon nañ ci gannaaw ne way juru sëriñ bi di Maamor Anta Sali mi ngi dëkkee woon Bawal doon boroom xam-xam boo xam ne boo xam ne mi ngi jëlee xam-xamam ci laxasoon euh, dem ca jàngukaay yi ci njàmbur dafa laxasoon dem njàmbur jàng ji ko fa njàmbur nag mooy wàlle gi gën a mage ci kajoor goo xamante ne jullit yee ko dëkke mu jànge woon ci ku ñuy wax Masamba Anta Ceebo ci kokki mu bokkoon ci borom xam yu mag yi ni ci ay maamam bokke woon sunu néeg néegu néeg bu siiw ci néegi xam-xam yi néegi borom xam-xam yi kajoor yi ak mboolem Sénégal sax nag tàmbale ci seen maam Moxtaar Ndumbe ba foofu yi ñu toll rek këru xam-xam la këru diine la maa ngi date lew woon sax gane àdduna ak Maxtaar Ndumbe moom akub dundam ci ñaari bayit wax ni fi jay xashin min hijratil muxtaari du jaddi kokkihil muxtaari wa umruhu jadan yahullu ilma aw rasa xisban wa afaada xunma mu ci atum junneeg téeméer ak fukk ñett ci gàddaayu yonent bi ci la seen maam Moxtaar Ndumbe juddu ab dundam nag mu ngi toll woon ci jadan yaxullu buñ ko boolee mi ngi toll ci juróom fukki at ak ñett la dund ab dundam jadan li muy teg mooy ab taw la yaxullu boobu dina dotte ilman xam-xam aw waame la wuy dotte xam-xam boo xam dina maye naataange di maye am koom boo fee buñ boolee baat yooyu nag jadan yaxullu jooju mu doon teg mooy cinquante trois ans la dund lii gën a not ci sama njort nag mooy xam-xamu naxu la doon jàng moom moo daan sëli ci kokki mook nijaay sëriñ bi di sëñ bu soobe ndax gis naa ak xasida goo xam ne kenn ci ko def di ko taggee seen sëriñ boobu yi ci ginnaaw bu mu jeexalee ab téere ci naxu téereb naxu boo xamante ni ibnu buuna moo ko talif muxtaar ibnu buuna moo talif téere boobu ñu jàng ko mu jeex mu def ci aw bayit ay di ko ci tagg تريب مختار ابن بولن بابو من كو ويون تي تسهيل تسهيل نك اب تيري لباب ابن مالك موكو تليفون تديكو تسهيل المنافع تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تموي جاب نلا اي نجرين اك موتلي اي جبلو واي ابن بونا ويكو تديكو الجامع بين التسهيل والخلاصه غناوبي لا سيرين ماوران سيري جوغي كوكي غوي dem salum jànge ci euh, sëriñ bu mag bu ñu wax sëriñ bam muhammad bam muhammad sall muhammad sall nag ci wa bamba la bok mu ni li ma gën sentu moy la ëpp ci fànn yi fànni xam-xam fa ko muy tawhid ak fiqh yenen mu doon sëriñ bo xamni ku ñu daan diñ ak euh, wilaya la mu doon borom xam-xam bu daan jëfe xam-xam doon ku ñu doylo doon ko mandu doon ko jullit ak caddoy wormaal mu doon ko siiw mi ngi faatu nag moom sëriñ Bàmba moom waaye bàyyiwul ak njaboot ña bàyyi ak njaboot daal mooy ay mbokkam yi mbokkante ak baay dëkkam boobu ñuy wax Bàmba nag moom lañuy askanale turu sëriñ bi ngir nu mu toll ci Mamour Anta Sali doomu sëriñ boobu loolu it mooy aada yi waa réew mi ngir dañuy fab seen doom di ko tuddee seeni sëriñ ak di ko tuddee seeni wayjur loolu mooy aada ji ah fi doon aada ci doom dafa jëkk bi mu jàngee fànn yii nag ba matal ko moom Maam Mor Anta Sali eh, ci la daal di beru nag tàmbalee jàngale daal di siiw lool nag mu mel ni dafa doon barkeb sëriñam soosi wet gu ne rek eh, dong yi di ko fa bàyyi ko ñi jóge Saalum ñu jóge Kajoor ñu jóge Bawol ñu jóge Njaambur ba ñenn ci doom yi ña ko daan ja ñam daan jàng ci ñoom sax am na ci ñu ñëw di jële si ci moom xam-xam ma di ci tudd rek ku ñu wax Masamba ma mi nekk doomi Masamba Anta Cee ba mu doon jàngee ci moom naxwu ca Kokke kooku ñu ñëw ne ci bokk na ci ñu doon jàngee Anta doon borom xam-xamu naxwu bu mag doon borom xam-xamu luga te muy làkk arab bu mag sax ay leeral yu mu leeral ci alfiya Maamor Anta Sali nag lu ëpp ci ab dëkkuwaam mu ngi daan euh, mu ngi dëkkewoon fa ñuy wax njax nja nag fa ay nijaayam nekk mu dëkk ka ca mage ñu di ko wax ka ca mag ci ñoom ñu di ko wax sëriñ ahmadu binta kan foofu la ëppoon lum nekk daan jàngale moom mamadou anta sëli ahmadu binta nag mook soxna anta sëli mi woy juróom ñoo bokk ndey ak baay mu nekkoon borom xam-xam bu mag di ko wegu di ko am ak mokkal doon ko amu xereñ njanag mi ngi ci wegu ëttu mbàkki bool gi moom la ñuy tuddee xuru mbàkki jamono bi ñu toll ni noonu lañ fa nekkee ba ni ma ba feeñe ca salum xeex ak caddu yi not leen xeex ak buuri kajoor yi dameeli kajoor yi ak jolof daan woote diini islaam moom sëriñ Maba moomu waaye nag mu daldi ginnaaw bu mu leen noté it ba tey mu teg jullit yëpp rawatina sëriñ seeg borom xam-xam yi ñu leen ne ñëpp gàddaay fekk si ma Saalum loolu nag desoon na ci ñoom lool desoon na ci ñu bari ci ñoom sax la jubloo la ndax ndax euh, dañu gëna a ak dal ak noflaay ngir li doxoon sen digënté ak dameel yi ci jamo ak coléré waye ma bay japp na ne moo ci dëgg rek dëgg mom mom japp na ne ci dëgg ngir dafa doon tiit katchor yoy di songu sëriñ cheikh borom xam yoy di fay ci ñom ngir li mu leen not gañe leen tara mo ni dal ñi mën nañu fay ci ñom kon loolu taxoon mu di leen jox ndigalul ñuy gadda jëm ci mom fofé ci sal motax ñepp dal di toxu ànd ak ba mu des koo xam ne li ku gàllankoor mooy tële te ku tële bu mën a demit dana day jiital day jël sa njaboot jëlaal say doom say say waa kër say doom yóbbaale dafa yow képp loolu nag bokk na ci li ko ñu bari doon critiquer waaye nag mënees na koo jéggal ci lu bari ci lu def ci njuumi polit njuumtey politique ak ñàkk gum ñàkk tey ak ñàkk diisoo ngir moom dafa xeroon rek ci taxawal diine ak ñoŋal diine ak ñoŋal waa diine waaye nag li ma dégg mooy moom dunutoon borom xam-xam ku géeju lool ci xam-xam ak fiq te it du won ab politicien xamu jàngu xamu politique daal moo tax li ñaan suñu borom mooy mu jéggal ko ay rëcc-rëccam yal na ko suñu borom fay aw yiw ndax yëkkati na drapo islam dundal it diine liggéeyal islam liggéey boo xam ne daal euh, bu fekkee am na ay bit li gën mooy yàlla moo ñu bañ a tudd ayibam yooyu yi ci peggu yooyu mu def mun nag ci bi muy dajale mbooloo mi jëme leen Saalum moom Maba ci la romb Maam Mor jël ko bi mu ko yóbbu jëlee jaar ca fekk fa Maam Balla mi ngi jege juróom-ñeent fukki at ba waaye mu gantu ngir mag mu ñaan ak njëgal la ngir ne day mag dafa jaar nja jël Maam Mor jaar ngay bëgg a jël mambala boobu fekk mambala ngi toll ci ay juróom-ñeent fukki at mu sàkku ji jégal ko ngirug magam jamono boobu nag sëriñ bi mu ngi woon Jolof ànd ak eh, nekk ca nijaay ooy juróom nijaay maam jaara jooju muy sëriñ Tafsir Mbàkke Ndumbe mu ne sax sëriñ bi ci boppam moom xamal ne ma Maamar Anta Sali ba muy nekk nja ginnaaw bu sëñ bi feree am soow la ko yóbbu foofee ca bàyyam bu ndaw boobu ginnaaw bu ñu toxoo Mbàkke bool ba nekk njax nga xam ne ginnaaw bu mu feree la la ko Maam Mor Anta Sali yóbbu foofee ca nijaayam jooju nijaay maamam jooju te moom lay tafsir Mbàkke Ndumbe mun moo ko wax la nekk ba mat dalal ko ba mu mokkal alxuraan mu noppalu sëriñ boobu mu nit ku baax di ko am xam-xam di ko am dine bokk na ci li ñuy rafete njortu ci moom ci wàllu gaat gaa gaat nga li ñuy wax gaat nga te yonente bi alayhi salaatu wasalaam doonoon na ku bëggoon gaat nga gu rafet bokk na ci li ñu rafet njort la wax ne bi muy faatu mi ngi doon bindub kaamil boo xam ne dafa tàmbalee ci kaw ak ci xaaju xaaju kaw bi ak xaaj bu féete xaaju ñaar moom la ñuy wax xaaju kaw xaaju suuf tàmbalee baqara tàmbalee kaaf bindee ba xët yi àgg diir bi muy xaar ngir mu wow loolu dafa yéexal liggéey bi tax di daal di tàmbali di bind ca xaaj bee noonu lay bindee ngir rek bañ a sànq waxtu wi ci di xaar kayit yi muy fendi waaye mu ni bokk na ci li ñuy rafet njort ci moom de eh, dafa tombeek bi muy faatu mi ngi tombeek mu toll ci aaya bi ci su ci xaaju kaw bi mi ngi ci tombeek aaya bi wax ne wa amma alladina biyaddat wujuhuhum fa fii rahmatillahi hum fiha xaalidun te mooy fii suñu borom di wax ne ña nga xam ne seeni kanam weex na de danañu sax ci yërmande yàlla ñoom ci xaaju suuf bi te mooy xaaj ñaareel bi ci muy tàmbale kaaf jëm suuf mu ngi ci toll ci ashaabul jannati yawma idin xayru mustaqarran wa ahsanu maqila lolo lu ñuy rafete njort la ci walu gaan nga rafet ci moom te mooy waa aljanna day ci bis bobé ñoy ñi gën ab saxaway té ñu gën taru ap am kendal gënaaw bu sëriñ bobu noppaloo muy tafsir mbàkke ndumbe ci la sëriñ bi dem nak ci nijaayam ci lañ ko yobbu ci nijaayam sëriñ bu soobe mu doon imam ju am xam-xam doon ko boole diggante ak sell ak nite ak yewute ak njàmbaare ak kóolute ni ko woykat bi waxee ni jamaa shajaata wal xudua li rabbihi ma ahsana al mihraba fi l mihraabi boole na ak njàmbaare akuk toroxlul borom ab mihraab ci mihraab nag dara gënu ko taaru noonu la demee kon li sabab sëriñ bi dem Saalum mooy bi ma ba tegee toggee jullit yëpp ci ne ni leen nañ gaa daa ñëw Saalum ko fa dafa sàkku bi mbooloo mi daje dafa sàkku ñoom ñu tànn koo xam ne sarti mu doon mufti daal sarti mufti daal dana daje ci moom bañ ne cell mu xelal leen ni leen sëriñ Bousso bi doy na ko ci bu fekkee nangu nañu ko ñu ñëpp ñu dëppoo ci nangul ko ko loolu moo sabab euh, ñu woo sëriñ Bousso bi mu ànd ak sëriñ bi ñëw Saalum ñu am fa nag ay at ñoog Maba ci biir at yooyu Maba xeex na ci waa Kajoor gañe leen ndax tawfeex ji ko suñu borom defal mooy indi gi mu indi Lat Joor ci loxoom ngir Lat Joor jamono yooyu euh, da doon da doon da di di bëgg a bëgg a foqaacee gi ci loxol Maajooja mi ñu faloon mu nekk euh, Dammeelu Kajoor Maajoor na daa Maajooja na bokk ci néegi yàgge ñoom ay néeg lañ daan def néeg euh, diggante néeg géej ay dëngéej jax réew léegi nag Maajooja ci boro ci néeg yooyu jiitu jiitoon ñi jëkkoon falu ci la bokk Lat Joor gis ne ay mbokkam ñoo fi mujj falu tax mu jóg di xëccoo ak moom nguur gi Lat Joor nag mooy gën a dëgër ëpp mbooloo ngir ab néegam buur yi bokk yi mu bokkal nekk dañuy def Kajoor lu toll ci téeméer at ak ñeent kon kooku di dëgër ka ngi foofu maa jojit gis moom mooyal moom moo gën a yaay ngir moom waa këram néeg bi mu bokk ñoo fi jëkkoon di falo ñu jëkkoon moom nguur bi Lat Joor jógee nag taxaw di di xëccoog moom moom yi nga xam ne moom lañ faloon dammeelu Kajoor jamono boobu mbooloo mu bare bare jóg ànd ak moom ngir nguur gi bi mu jógee ci seen loxo dafa yàggut noonu boobu loolu moo waral sax Lat Joor gañe ko ay yoon sax ba ni maa jooje demee ci tubaab yi sàkku ci ñoom ñu dimbale ko ñu dimbale bañ ko dimbale ci guerre bi nag ci leen gañe Lat Joor mu daal di daw dem Saalum bi mu duggee suufu ma Maba yabal ay ndaw ñu gàttandu ko xamal ko ne ko nee na du la mën a nangu accepté mu mukk te nga jébbalu ànd ak moom yaag sa ñu xam ni pexe amul moo tax ñu jébbalu ànd ak ba waaye loolu it aw yiw la ci Lat Joor ndax sax na ci islaam yi ci jébbalum googu yàlla yit ginnaaw bi jox na ko nguur ga mu doon xëccoo na mu ko bëggee woon ci ak dal te it mbooloom bari dañoo jébbalu ngir moom ñuy ñaan suñu borom kon mu fayal nu ko aw yiw kon loolu mooy mm, bind bi nga xam ni mooy sës ci bind bee ñaan yàlla mu defal nag dégg ak topp ak kon ëllëg ñu jàll ci des rek ci diggante sëriñ bi ak doxinam daan dox jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu